asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di rafetlu toogaay yi ak teewaay yi di nuyu mbokku journaliste yi di nuyu mbooleem koo xamante ne yaa ngi fi teew ci conférence de presse bi wante may nuyu ki nga xamante ne tey mën nañu wax ne moo fi teewal le président Abdoulaye Wade muy suñu papa muy suñu frère le frère candidat à la ville de Dakar avec voix le président Doudou Wade mon ami et frère di la jox wàcc waaye maa ngi nuyu sama sëriñ sama xarit le frère Khalifa Ababacar Sall di nuyu sama maam Déthié Fall Ndiogou Fall grand député Déthié Fall di nuyu nag Burok Burok Burok maa ngi nuyu Burok ndax tey teewaayam si Pikine wax fa dëgg yàlla mooy wone moom ak coalition Yewwi Askan bi dëgg ak euh, vérité ak démocratie rek moo leen ñor may nuyu toutes les femmes du département de Pikine du département de Dakar département de Keur département de Guédiawaye ñëpp maa leen di nuyu jël ko teg ko ci loxo honorable député Woré Sarr muy suñu yaay mu si ginnaaw di nuyu bu baax surtout Serigne Touba. conseiller à la ville de Pikine soxna Alimatou Mbacké bokk ci section PDS bu ginnaaw raay nord di sunu militante mu ngi nii toog di doomu Ablaye man sama wax tey maa ngi nuyu sama doom nag borom borom borom tugur yoo bi mari Sagna nga xamante ne xeexkat bu mag bi xam nga buy lamee Assane Diouf merci docteur monsieur le maire di nuyu le king du département de Pikine réélu quatre cinq fois mon frère ami yi nga xamante ni jëlul moyens yi denc ko ci poosam élection yi man daf ma jàppale le maire Abdoulaye Diop jaajëfante Fouad konte boobu ma ñëw wax leen ne leen ñun suñu xeex amul xaar kuy xeexal keneen bu sa xeex jotee danga koy xeex Abdoulaye Timbo dafa war a xam ne surtout Abdoulaye Wade ragalul ay dóor ñun ku ñu dóor dañuy fayu yéen tamit ku leen dóor na ngeen fayu loolu la ñu Abdoulaye waxoon dañoo sàcc na parce que ñun ki ñu yar jàngal ñu politique wax ñu politique wax nañu ne bu leen attaché wu ci lu ngeen moomul victoire bii nag bu ñu amoon dut ne amuñu ko du ñu engagé wu parce que ñun duñu ay sàcc sàcc moom ci ñoom rek lañ ko xamee parce que kuy jëluy jooy yaa xam ki dee ça fait quatre jours qu'on me colle RG ça fait quatre jours que ñu yaakaar ne fii dañ koy taal wala fii fi kenn taal fi dara suñu victoire lañ jël ñoo ko moom amul dara ala accu amul bàyyi dama bëgg xam ne lu mu leen jaral pour ñu sàcc victoire bi dinañu ko jaral pour le rassemblement la réunification de l'opposition dans son pour que la victoire et seule la victoire triomphe. Timbo gañewul élection yi. te moo la ko gën a xam li tax ñu tiit ñetti fan lan moo tax boobu léegi tiituñu lan moo tax boobu ba léegi bougé wuñu tey ay char de combat lu ne indi nañ ko Pikine xam nañ ne li ñuy def du jàll ça ne passera pas parce que xam nañ ne tey élection yi ñu war a sàcc opposition bi yëpp toog nii loolu yombul woon a am tey merci Bourok merci Khalifa merci Déthié d'avoir répondu à l'appel d'une pauvre collègue, d'une pauvre maman. Merci beaucoup. Toute l'opposition réunie, nous gagnons le combat. Après, nous avons. Nous avons du département de Pékin. Nous avons appelé le combat. Le docteur Gerdien, c'est le maire de la ville de Pékin. Maire par force jàppale Ahmed Aidara parce que dañoo gagné di gërëm bu baax sunu jabar madame Anna Koulibaly moom aussi sonn na si liggéey bi elle n'est pas seulement une femme de mère mais elle est militante di gërëm bu baax The Line Ndiaga Niang lii rek bëgg daan na wampal maa gërëm bu baax leen di sant gërëm sunu doom Mariso Ndiaye elle a été à l'origine de tout di gërëm le député le Abo Thiam Amit le maire ah Famara Diédhiou et derrière duñ la fàtte Gaynde on a été tous au four donc yàlla na yàlla jàppale ñu le euh, que le meilleur gagne waaye ñun ñooy le meilleur gagné nañ ba pare merci beaucoup. ah docteur monsieur le maire félicitations. merci merci honorable député Mame Diarra. Euh, ci waxtaan wi gi ñu demaat parce que mbir yi moom day bëgg a guddee moo tax amoon ñu temps euh, defe naa après Mame Diarra madame Ndella Madior Diouf moo war a wax Guy se prépare Mouhamed dañoo lànk le nom n'est pas mentionné ici Mouhamed Mouhamed dañoo lànk anim ñoo lànk Mouhamed mu ngi fi ah on va le sauter parce que Donc, euh, Guy Marie Finalement, on se retrouve ici. asalaamaaleykum ah, maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di nuyu euh, le docteur Cheikh Dieng mi waral euh, jotaay bi nga xam ne ci histoire politique Sénégal musta am su ma jógee si docteur Cheikh Dieng maa ngi nuyu Doudou Wade nuyu Ousmane Sonko maa ngi nuyu Déthié Déthié Fall di nuyu Mamadou Lamine Diallo bu Tekki di nuyu Mayoro Faye de saint Khalifa Sall maa ngi koy nuyu di nuyu euh, Mame Diarra Fam Mame Diarra Fam nag moom dafa nekk euh, une femme euh, très très très très gentille xam ne dafay euh, boole ñëpp ndax lii yëpp moo ko waral tey maa ngi nuyu Guy Marie Sagna di nuyu l'avocat maire donc maa ngi nuyu ñëpp waree donc ku ma fàtte rek Assane Diouf mon frère maa ngi koy nuyu donc di nuyu ñëpp ku ma fàtte rek nag ma baal ak tey nag moom vraiment c'est un grand jour Timbo lañuy ñuy demandé lu mu seex naka yàbbi kon Timbo moom lañuy ñuy demandé lu mu seex naka yàbbi docteur Cheikh Dieng ñëpp xam nañ ko moo gagné ville de Dakar ville de ville de Pikine loolu moom ñëpp xam nañ ko bu recours amee nag kenn sonnatul On a des avocats qui sont compétents, avec des PV irréprochables, donc le travail sera facile. Donc Lolo, vraiment, pour régler ce problème-là, c'est comme une goutte d'eau. On peut le régler facilement avec euh, donc euh, l'appui des, des d'avocats pour que nous rétablir la vérité des urnes ñu delloo euh, wàllu Pikine lu am ñoo ko ñàkk ñoo ko mérité ne leen ko delloo dama xamul sa lu tax ñu yab docteur Dia ndax yabuñu Sonko à Ziguinchor yabuñu Barthélémy Diaz à Dakar yabuñu Serigne Mboup à Kaolack pourquoi ñu bëgg a yab maintenant docteur Dia à Pikine duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg kon ñun ñëpp ñooy booloo xeex pour ñu delloo la vérité des urnes et que le maire reprend ses droits vraiment après cette mobilisation bon on nous parle d'un mois de recours donc d'un mois boo xam dañ koy étudier kon on va patienter mais nañu delloo la victoire à docteur Dieng maa ngi leen di gërëm di leen di sant